ulama yi ci seenu laabi ñu tegtal nit ñi ba xamal leen li bon lépp li ñu war a wattandiku xamal leen li baax laabiir leen it ci li nga xam ne dana tax seenu dund am solo seenu dund barkeel ba duñu rëy ci seenu dund bu ëllëgee mu ni من وإن قرأت وقت الصبح بسملة عشرا وصلتها بلفظ حوقلة خرجت من كل ذنوب يا فتى كيوم مولدك فيما ثبت وقت واحد من جلد سبب نفي ngay wax bismillahir rahmanir rahim fukki yoon fekk la hawla wala quwwata illa billahi al azim da nga génn ci sa bakkar ba mel na nga xamne non la bis ba la sa yaay ni nga ñaké won bakkar bu ko défé du yam ci lolu wa anta yadfa'u idhan rabbul ala isnay ma safina babat min bala sun borom dana la fermel juroom ñaar fukki bunti bala ak ñaar yakunu adnaha jizamul ulama wa barasun ala ittifaq ulama te bunti bala yoy la sun borom sakkal nga xamne doo ci jaar ci benn ba ca gën a ñaaw mooy lu mel ne gaana wa ba'da dika yuwakkilu malik malik min xiina ma asbaxta ma kulli malik yastaxfiruuna laka li lilika la xaddis wa xeyrul wara wa oxisa yow mi xam ne bi nga jullee soo ba noppi def nga fukki bismillahi rahmaani rahim teg ci yooyu teg ci astaxfirullah hawla wala quwwata illa billahi al azim suñ borom dana la boolee juróom ñaar fukki malaayika yoo xam ne fuñ tollu di la balool di la sàmm ba jant bi sopp noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi ma sallam waxtaanee noonu lañ ko jëlee ci moom mu ne wax jooju itam ma wax sutura la suñu diggante jinne yi kiiraay lu ñuy lu ñuy yiir ba duñu mën a lor képp koo xam ne itam gis nga tooñkat boo xam ne bëgg ngaa mucc ci moom bismillahi rahmaani rahim nga wax ko juróom fukki yoon suñu borom dana ko toroxal ci sa kanam te dana la musal ci ay pexem ak ci léppam mu ne ndax bismillahi rahmaani rahim lim bi mooy limu malaayika yi nga xam ne mooy zabaan yi ñi nga xam ne ñooy xam bu safara te kon suñu borom dina la musal ci barke bismillah rahmaan rahim ñu ci ayu malaayika yooyu waaye si maa yu bismilu sabiyu fi maktabin yaktubulahu ali wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naari fal taalamu wa raakibu daabati maama basmala bépp boo xam ne yaa ngi yéeg ci kaw daaba muy fas muy mbaam wala nga dugg ci oto nga ne bismillahi rahmaan rahim boo toogee ne alhamdulilahi rabbil alamin lépp jéego bu daaga bay jégg ba ba ngay àgg daañu la ci bindal jiw woo xam ne daañu la ko jox yomal xiyam natt ko ba mu fees dell toog benn béréb wéet delloo sa xel di seet sa ëllëg ak li nga jëf moo ëpp doole jaamu ak moo ko ëpp njëriñ ëpp ko tuyaaba bépp xardal fekk bi gën a tuuti ci lu génn ci xolu doomu aadama ne ci ngëmam ci jëf moo ëpp doole julli téeméeri rakka yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax mu ni waxtu woo xamee ne yaa ngi nelaw nga jàng fatiha ñeent yoon jàng lixlaas qul huwallahu ahad nga mu àgg ñett yoon baaqiyaatu saayaat mooy subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ñeent yoon astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fukki yoon allahumma salli ala badi salaam ba mu yeex fukki yoon loolu boo ko defee nee na da mel ne képp koo xam ne kii sarxa nga ñeenti junni dinaar at mu ne nga aji umra te suñ borom dana dox sa digganteeg ñi nga amel xaq ñëpp fay leen mu fayal la leen ba te dana fekk nga mel ne koo xam ne kii jënd nga àjjana ba moom ko mu leew la guddi gooy nelaw nga def ko xam ngeen yooyu yëpp yoo am njëriñ la bokk na ci farlu que enregistré ngeen ko fexe am band yi di ko déglu dana am njëriñ dana leen soññi ndax nit bu bëggee farlu war na am carnet bu tuuti boo xam ne lépp lu koy delloo si daf ko cay noté lépp lu mu dégg te muy lu am njëriñ mu noté ko ci waxtu wu xëyee teg ci bëtam delloo si boppam waxtu wu gontee noonu wala bu sàkk ñetti waxtu ci bis bi dana tax a farlu sàkkal sa bopp aw sas moo xam salaatu ala nabi nangam yoon la ak lu mën a toll nga sàkk jamono yoo xam ne da nga koy def bokk na ci lii xett li nit bokk na ci lii wax digganteem ak seytaane bokk na ci lii tee mu lab ci àdduna ndax àdduna kat géej lañ ci ñu bari lab nañ ci te duñu am ku leen toqali mu ne sarax lu am doole la bu ñu ne sarax bari na yu taxaw taxawaayu sarax waxtu woo saraxee da nga xam ne yàlla rek a tax waxuma nag nit nga xamne li sarax di jeriñ rek ko taxa sarax moy yow mi kat da nga am jangoro jo xamne da nga bëgg mu wër tax la sarax sun borom mën wër ak jangoro ja waye do am yoolu sarax ndax yalla taxul nga jëf kon sellalo li la taxa jëf moy sa jeriñal bop da ngay examen bëgg at mi wala da ngay xëcc dara bëgg ko jëm ngay sak sarax loola la taxa saraxé yalla mën la defal loola wala mu fanqal la leneen lo xamne li mo la ëpp njëriñ ci yow waye kat tuyaa bay sarax ba mat doo ko am ndax yàlla taxul waaye nag bu fekkee ne da ngaa saraxe yëkkati ngir ci sa alal ju la leew ngir yàlla suñu borom dina la waxtu ci balaa benn sarax rek dana fekk deewin wu ñaaw juróom ñaan fukki juróom-ñaar fukki yoon te kii saraxekat bu yemal xiyaamee ni ñu ko faral di waxee ñetti ker doo nga am bu ñu xamee xëcc jant bi ba muy bëgg a laal bopp yi ñetti ker rek a am liwaa ulhamdi gir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yonent bi saaba keroog araf malaayika yee ca nekk doomu aadama bu nekk sa keroog sarax li nga saraxe rek ca keram ngay seelu keroog géej bala ñu àtte bindeef yi ca ker googa ngay seelu kon sarax mat nay bari dana laabal sa alal ji nga am dana yaatal sa wërsëg te dana ci def barke te dana woyofal sa xisaab bu yomal xiyaamee yomal kër bi dana la diisal itam sa balance yi ñuy feesee si jëf-jëf te booy jéggi saar itam dana ko woyofal gaawal la dana yëkkati sa daraja te dana la jox ngërëmal yàlla te dana dana jàqal iblis te dana yokk jëf yi nga jëfoon itam dana ko ful kon am na solo ñaar rakka yooyu julli ci waxtu yoor yoor dana taxaw taxawaayu sarax lépp lu sarax di jëriñ kon dana ko jëriñ naka noonu maanu diggante ñaari nit ñaari nit ñëw attewu ci yow nga atte dëgg walla nga ñëw ci tooñ nga wax ko ni mu demee wala ñaar ñii nga yemale leen ci li nga xam ne ñoo ci yem xaq nga yemale ko loolu it taxawaayu sarax lay taxaw naka noonu digle lu baax ak tere lu bon taxawaayu sarax lay tax lépp loo xam ne itam jël nga ko ci alal ci sa alal joxe ko ngir sàmm sa der moo xam kii bu fi jógee dana la yàq wala dana la ñaaw boo ko joxul nga yëkkati ko jox ko loolee nga ko jox taxaw da taxawaayu sarax ulama yi wax nañ ko naka noonu fekk luy lor ci yoon bi moo xam dégg buy dame la wala doj ni fakk lu mu mun doon nga dindi ko taxawaayu sarax la naka noonu gumba goo xam ne da koo teg ci yoon wala nga jàpp ci yetam wàmmat ko taxawaayu sarax la naka noonu képp koo xam ne kii jullit la wala ku gëm la nga xamal ko lu baax nouvelle bu mu yëgul nga ñëw xamal ko ko mu bépp loolu itam taxawaayu sarax lay taxaw ak nuyoo ak moom wax waxtaan ak moom tuuti bañ a nuyoo rek daal di dem nangam mu ne nangam nga dem naka noonu ngay nuyoo sa mbokkum jullit nga ree nga mooñ lu am tuyaaba la neenu waxtu ñaari jullit saa fonte di nuyoo téeméeri yiw la sa borom di bind ci gën a rafetal kanamam ki gën a ree gën a neex deret moom mooy jël juróom-ñeent fukkee fukkee ca def ka ca def fukkee ca def ci njëkke bi ñu ko kon nga nuyu sa mbokk julit muuñ lu bari tuyaaba la te dana taxaw taxawaayu sarax ba noppi am na leneen lu ci nekk loo xam ne nekkul ci sarax naka noonu mu lu baax nga dem ndokkeel ko naka noonu dara nga dem defal ko naka lu koy jëriñ nga tegtal ka ko naka noonu mu am aajo nga dimbali ko ci ñaanal ko moo xam teew na moo xam teewul nga fàttali ko ñaanal ko naka noonu itam jéggalul ko jiw nga fàttali kon yàlla na ko suñu borom jéggal yàlla na ma nga tàmbalee ci sa bopp nag ndax dañu ne ngay tàmbalee ci sa bopp booy ñaan wala ngay joxe tàmbalee ci sa bopp sa njaboot sooga dem ci sa xarit ak yi